nga nga ko s'il te plaît rek. Mhm. parce que yun biir Pastef waaw yun biir Pastef xamuñu trahison. waaw l'histoire de Djibril ngoom mu ngi fii ñu jël benn waay boo xamante ne dafa nekk au euh, au nord Fouta Farba jël ko paqueté ko loolu yëpp yàggul boobu ñan ñoo subir Pastef l'histoire des députés législatives yi passé la woon ayez ayez le sens d'écouter s'il te plaît. man bi may bi may non débat la des fois non c'est vrai non c'est vrai mais man je coupe personne dama ci ànd rek non non je coupe personne. Ah. non dama ci eh, ànd rek grand. Ah. ok mais mën na la interpeller aussi parfois donc ñun ñun yàgg nañ ñu trahir. tey boo xoolee da nga ne trahison communiqué bi kan moo ko génne. coalition Diomaye président moo génne communiqué comme quoi que ci bannière Pastef la ñuy demee parce que Pastef mooy ossature. bu gën a taxaw ci coalition Diomaye président loolu war ngeen ñu ko mun a nangul parce que amuñu temps problème de temps dafa dafa posé ci élection yi loolu mooy bu njëkk bu ñu jógee foofu fan la ñu jógee ci législation bi nga xamante ne quatorzième législation bi nga xam ne dañu fa jóge tey ñëpp gis nañ tey ñi nga xamante ne Pastef da leen porté woon ñu dem ci coalition euh, Yewwi mais bi ñu demee trahison dafa am léegi nag pour éviter cette trahison parce que tey bu bu fekkee parti moom moo la porté nga dem boo ko trahiré mun na la teggi mun na la teggi teg fa keneen mais bu fekkee coalition moo la porté loolu mënuloo ko parce que coalition yeewu bi nga xamante ne moo porté woon yenn député yi yenn député yi bu ñu wanee seen taxawaay ni ñoom ànduñoo ko tey euh, projet PASTEF yun munuñ ci dara <coughs> mais léegi pour bañaat répétition boobu noonu est-ce dañu war a toogaat di répété wu li nga xamante ne dal nañ ñu defaat ko. d'accord donc loolu noonu la ñuy éviter. Mm-hmm. te léegi koo koo nga xamante ne tey dal na la daaw bu la daraatee déwén yow ko teg sa bopp. donc raison pour laquelle mënuñu demee tey ci bañeeru yenn coalition yi nga xamante ne demee mënoo mu doo mun a gérer yenn yenn trahison yi bu fa amee yun depuis le début fii si histoire politique gu Sénégal yun kese la ñuy trahir mosoo gis kenn ku nekk Pastef tam trahir koo xamante ne dafa ànd ak moom ci coalition musul am. Mhm. donc musul citer non musul am. d'accord ci sama question bi ndax du ngeen wéet ci seen seen. sama sama sama sama début entamu sama début entamu émission bi nee naa la sama yaram dafa day xasan fu mu ne nii ñun dañoo dañoo namm terrain bi ñii xamante nañu ñoom ñëpp xamante nañu c'est des zéro virgule zéro zéro zéro ñoom ñëpp ah, d'accord zéro zéro virgule zéro comme ni mu ko waxee tey jii benn coalition bu dëgër ñu am ci firnde bu taxaw euh, taxaw pur PRP euh, bu Déthié Fall euh, Anta Babacar Ngom Thierno Bocoum Euh, Pape Djibril Fall ñooñu tamit am taxawaay ci wàllum politique tey jii ak Bougane Gueye Dany ñoo ñëpp daal di ànd boole ci benn coalition mu doon loo xamante ni dina dëgër lool pour ci élection yi ñu jëm. waaw foofu aussi euh, li ma la waxoon sànq rek ci diggante PDS ak euh, APR mooy dellu si waat parce que boobu boobu coalition aussi mën nañ ko xaar ci élection législative parce que coalition la boo xam ne si ni mën nañ ci comprendre lu bari. bu ci njëkk moom mooy les spoliés yi nga xam ne si dañoo demoon ci élection présidentielle bi ñu génn ñu recalé leen parce que dañu leen recalé ni leen mënu leen dem ci élection yi pour des raisons x y donc xam nañ ni Bougane bokkoon na ci spoliés yi xam nañ ñi aussi euh, bi ñu demee tamit ñi nga xam ni ñoom ñoo ci ëpp muy Anta Babacar Ngom muy xalifa sàll muy euh, euh, Pape Djibril Fall gis nañ résultat bi ñu fa jëlee ay zéro virgule nangam ak pur ak la ca des mais boo xoolee ci biir coalition bi kan ngay jëkkataan mooy da ngay njëkk ni pur allié de taille la woon ci coalition bi ci Pastef ci Yewwi ci lépp donc bu ñu demee ba élément bu toll noonu mën a quitter le navire pour mën a dem carrément se ranger du côté de l'opposition alors que ñoo nekk au pouvoir te ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk muy xalifa muy Bougane muy Pape Djibril muy Déthié Fall boo xoolee tey ji pur moo leen gënoon jege léegi nag le pourquoi ñaar ñi nga xam ne ñoo ci ëpp taxawaay wala ñett jour pour jour deux ans Déthié Fall xalifa Sall ñoom ñoo comme cocktail li nga xam ne moo di Yewwi ñoo ko créer ñoom ñoo ko def li mu doon créé ossature bi yi lépp ba Yewwi existé. kon mën nañu jàpp Kader ni li Yewwi bu bees la. Yewwi bu gën a dëgër non Yewwi bu bu Yewwi ñëwuluk mais. ak ay bagages am parce que li tax mooy yeewi bii moom moo permettre ñu amoon majorité ñu amoon représentativité ci assemblée nationale. mais bu ñu continuer woon tuuti yeewi bi mënoon na créer ñu am euh, li nga xam ne c'est moo de la majorité donc su ñi nga xam ne ñoom ñoo porté woon bannière boobu il a deux ans pour dem ci élection législative ci assemblée nationale ñooñu tey jii ñoom ñoo quitté pour dem ànd ak créer leneen bàyyi ñu ñu lool te je pense que parti politique bu ne da ngay xeex pour accéder au pouvoir pourquoi ñu quitter le pourquoi mënuñu ànd bokk vision ak ñi nga xam ne ñoom lañ loon démb il faut que ñu bañ a naxante bañ a wax waxi politicien dafa am ay constat yu ñu war a def am ay autocritique yu ñu war a def seet lan moo tax gis nga équipe nationale bu waree gañe gañewul mais sénégalais yi ñoo moom seen commentaire parce que équipe bi suñu équipe la mais gouvernement bi suñu gouvernement la dafa fekk ni dañoo dem ci bañeeru benn parti politique dirigé mais ñii ëppale wuñ ma ci le gouvernement actuellement mën nañ ma ëppale ni ma ñoom parce que ay militants lañ mais man je ne suis militant de personne mais mën tant que tel les dirigeants ceux qui nga xam ne si moom moo di le gouvernement en tant li am mooy man li ma jaaxal mooy pour seen seeni alliés démb di quitter. man question boobu laa posé c'est pas man. ka def non. seen i yow tamit non pur dem na. élection dem na élection. non may ma ma ñëw. pur dem na élection pur dafa yomb man je parle des élections législatives passées. ah waaw législatives passées moo tax ma la jour pour jour deux ans maintenant. Ah. ñoom ñoo àndoon. di xeex le régime en place pour dem. am majorité à l'Assemblée nationale qu'est-ce qui a entre-temps pour que ñoom ñu mën a quitter seen ay alliés démb yi pour mën a ñëw dellu ci opposition bi. mais élection présidentielle yi moo fi jaar ñoom ñëpp ñu dem. tànn tànn ñoom ñëpp ku nekk dama sa bopp ñoom ñëpp gis nañ lu ñu am pire moo ci dara. jàpp leen ko foofu. mais man mais man mais man bëggoon naa bëggoon naa quand même. Ah, non man non ma ci problème. pire bëgg interpeller parce que man du ma téye kan ku bëgg jëlal ah. xoolal. mais parce que man awma ci problème. saa yi bu ngeen sentiree dugg sama dugg leen. parce que loolu laa xam mais juste que dama poser ay interrogation nii lan moo xew entre temps. lan moom moo tax boo allié démb yi nga xam ne ñoom ñoo taxoon ñu àgg à l' assemblée nationale loolu bokk na ci lu contribuer faciliter le pourquoi tey ji ñu egg ci élection législative présidentielle bi ñu génn ngeen jël la pouvoir. mais tey jii ñooñu noonu dañu waroon kontaan pour nekk ci côté li nga xam moo di mouvance présidentielle bi pour demandoo ak yéen pour continuer am la même am la même majorité bi nga xam ne moom lañ doon wut yaa y a deux ans ci ginnaaw loolu nag su fekkee amul ah. lii am ci bëtu sénégalais yi mooy ñaar soit doxut soit am na quelque chose et que ces deux choses là ñaari questions yi bu njëkk bi mooy li ñu yaakaaroon amu fa ci ñoom ou est-ce que gisuñu fa seen bopp gis seen bopp nag mooy est-ce que réellement li ñu yaakaaroon ci wàllu liberté ci wàllu démocratie ci wàllu développement est-ce que ma nga fa ou bien li nga xam ne si ni moom moo am dëggantaan mooy ay wor da ci am sànq yaa ngi wax baatu trahir trahir français la rek metti na nag ci dégg mais parfois ça peut choquer mais ñaanuñu mu egg foofu mais ce qui est sur mooy ce qui est sûr mooy mm. élection yi ñu jëm jeune ne pense pas mu nekk Pastef point d'accord il faut que ñu ubbi léegi nag parti yi bëgg a dem sa soumettre ñoom la mais tey jii alliance bii am nga xam ne seen taxaw na ñu gis Déthié Fall gis Khalifa Sall gis PUR euh, gis euh, Bougane Gueye Dany Anta Babacar Ngom. Euh, Anta Babacar Ngom ak Thierno Bocoum ça va d'accord nañu nangu. d'accord nañu nangu ni am na quelque chose. bu opposition bi euh, nekk di créer mais euh, juste une précision rek yow daf laa kii damay fàttali rek yi. nga xamante ni ñoom euh, yëguñu walla sax ñu ngi door a jot ci information bi mooy coalition boo xamante ni taxaw na muy taxawu PUR PRP bu Déthié Fall Bougane Gueye Thierno Bocoum Anta Babacar Ngom ak eh, ki nga xamante ni moo di Pape Djibril Fall ñoo booloo rek ngir ànd ci élection 17 novembre yi ñu jóg alors lan moo xew précision lan moo xew ba gars yi génn c'est-à-dire que carrière boo ko dégloo hmm. c'est-à-dire c'est c'est dangereux li ngay li ngay li li li nga nekk di euh, di wax nii parce que depuis sànq yaa ngi naan parti yi génn parti yi génn lan moo tax ñenn mais ba léegi moom mënul lim parti yi génn ñi mu fi lim ñii ñëpp ànduñu woon présidentielle ñim fi lim ñii ñëpp ànd ñu ci kenn présidentiel. mais pas ah, présidentiel laisse-moi ah, développer non laisse-moi développer on parle de législative non laisse-moi développer non laisse-moi développer ah, on parle de Yewwi parce que législative la ñuy wax non man non maa ngi ci suma kaw suma dëgg même ma yeggali s'il te plaît non même ma yeggali mais dama ni yéen a àndoon législative ci quoi ci Yewwi comprendre nga wallu ñëw dugg ci ñu ñëw taxawu ba egsi ba fii donc bu ñu egsee ba fii mais les alliés de taille yi ngeen amul ci législative yi ñu génn laisse-moi développer suñu leen nangoo abandonné mais damay laaj lan moom moo non laisse-moi développer xam nga en dañu jóge ci ay élection booy def échantillonnage dafay baax nga jël ci baromètre yoo xamante ne baromètre yu solide la mm. yan baromètre nga mun a téye actuellement mooy dernière élection yi nga xam ne élection présidentielle la élection présidentielle boobu noonu moo ñu may 54 virgule pour cent ñu gagné au premier tour élection yooyu noonu ñi muy cité ñi ñëpp ànduñ see kenn ànduñ see kenn mënu ma cité benn. kenn koo xamante mënoo leen woon ànd. parce que ñoom aussi ay dama may ma dama may ma non may ma rek. waaw moo tax ma ne la tey li ngay wax nii lii amul su amul sens. non ah, sens la non non non laisse-moi développer. dama ne dama ne ah. élection yu ñu jógee. waaw moo ñu may 54 pour cent. te 54 pour cent yooyu noonu ñi mu tudd ñii ñëpp ànduñ ci woon. donc baromètre yoo xamante tey échantillonnage boo xam ne bu ñu koy jël ñi ànd ñi ñëpp yàqul tey yun fu ñu taxawee. mais mais non te te coalition Diomaye bu muy wax nii mu ngi nekk di manipuler depuis sànq mu ngi wax. mais ba léegi tuddul benn parti bu quitté. même même Moussa Diop bi ñuy wax nii dafa Moussa Diop dafa demal boppam mais quitté wul. donc il faut savoir raison garder.